engrais bi ñuy dégg ci trois milliards et quelque dina ci tudd di tudd sama frère di tudd sama waa famille euh, problème bi nag c'est très simple je pense que ni pour Sénégal yëpp xam li ci xew mooy c'est une plante boo xam ni une société représentée ici par ses avocats ñoo ko rédigé plante bi c'est bien clair et net et précis une dame qui s'appelle Nancy lañu plante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 wala di ngeen ci gis turu Massata Ndiaye ñun on nous a pas porté parce que importé wu ñu engrais indi wu ñu engrais engrais bi ki ko indi def ko indi def ko ci ay entrepôt di ko jaay légalement li nga xam ni moom la ku nekk di jaayee engrais sama mag bu ñuy wax Massata moo ci jënd.